baax a baax di leen bëggee lool euh, liggéey bi am na solo lool mu ngi teewlu télé bi ñuy en direct ci fii ci diwaanu Espagne euh, am na solo lool ndeysaan am na sëriñ bi fay leen fi ngeen yéene àggale liggéey bi suñu borom yeggale ko barke Cheikhul Khadim man la Ousmane Ndoye euh, maag soxna si ñoo nekk fii soxna si Alimatu Njaay la tudd ñaar wax dëgg dinaa leen di bàyyi xel lu bare bari man nag kii YouTube bi ñaar laa leen di faral di ëpp lu ma leen di amee waaye comme ni ma la ko rek wax dëgg liggéey moom rafet na lool télé bi nag maa ngi jëkk a dégg tur wi hmm, ci sëñ Saaliwu Sow ndaje moom doon moom mu defoon euh, leeralaale wàll télé bi ngir murid yi xam ko bi mu ko defee man sax ci saasa la bind tur wi ci euh, recherché ko daal di koy gis nag ci YouTube bi booba sax aw moon direct bi waaye euh, programme yi laa doon seetaan noonu rek waaye léegi nag wax dëgg ci bari ñaare di bu ñuy def direct ci bëccëg gi sax dañ dinaa koy jot ci YouTube beeg yëpp waaye daal ñu ngi rafetlu bu baax liggéey bi yàlla na leen suñu borom fay barke Cheikhul Khadim asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu yéen mbokki TV Touba Bichri ñu ngi leen di màggal di leen di ziar te di leen di wax li ngeen def am na solo trop wax dëgg fa yàlla ñun ñoo ngi fii ci Touba Argentine et fi ñu nekk nag xaw a nekk ci suur bi moo tax daanaka màggal Touba ki ñu ngi ko am fi en direct ci Bichri TV di leen di ñaanal rek xanaa suñu borom doole leen a ak kattan ba lépp lu ngeen am ci yéen liggéey ko Serigne Touba rek. yal na la ko suñu borom gën a jàppandil bu baax a baax a baax a baax wax dëgg yàlla rafet nañ émission bi maa ngi nii toog di ko seetaan sama kër wax dëgg fa yàlla macha allah di leen di ñaanal jàmm rek wasalaam jërë ngeen jëf asalaamaaleykum sama sang yi maa ngi leen di ziar waa sami yaram yi maa ngi leen di ziar man soxna Tàkku Caam bu nekk Birmingham Londres à ah, man soxna Tàkku Tàkku Caam Angleterre maa ngi leen di ziar di leen ñaanal leen wax bég nañ de bég nañ lool lool lool lool nañ lool bég nañ xasida yi dugg nañu alxuraan bi mët na macha allah xame nañ ci jàngi nañ ci lu bari wax dëgg yàlla. kontaan nañu sëñ Touba mi am fa yal leen fay yal na leen fay sëñ Touba yal na leen fay maa ngi leen di ziar sama sang yu baax yi di bég nañ de bég nañ lool xasida yeeg alxuraan bi macha allah tuwaar fakkaalo macha allah leen ñaanal ci bés bu tedd bi yal na sëñ nangu ñaan yi yal na leen sëñ Touba kawe lool ba ngeen kawe yal na leen sëñ Touba defal tawféex ak taysiir leen ñaanal bu baax sànq bi nag dafa xawoon xawoon na métti dugg nag moo taxoon te it ñu nekkoon nag ci ci màggal gi lool ñun waa Birmingham euh, daayira Tawféex ñun ñoo xëyoon ci fajar defar nañu macha allah wàcce nañ kaami yi macha allah defar nañ benn yi bëri na lool lool lool macha allah lool luñ fa waay xalaat rek waa mbokk taalibe yi defar nañ ko indi ko ne def nañ li war lépp macha allah. jàng nañ fa alxuraan wàcc nañ fa kaamin jàng nañ xasida yi lool xasida yi bëri zikarulaahi waam Cheikh Ibrahima Fall euh, xéewal gi bari na mbég mi bëri na tawféex beeg lépp daal macha allah tey daal waa ñoo ngi Touba daal tey daal ñoo ngi woon Touba wax dëgg yàlla ñoo ngi woon Touba xasida yeeg lépp ñoo ngi Touba waa di ñaan rek ci barke borom Touba yàlla nañ ko yàgg fekke te sëñ nangu ñu suñuy ñaan sëñ tubaa fulul ñu jàngoro yeeg ndog ndog yeeg lépp rek mu raxasal ñu ko ba ñu set raxasal ñu lépp rek te defal ñuy xéewal gi ak wér wee gudd fan yi sëñ tubaa defal ñuy xéewal gu baawaan saawaan mu baawaan ba ci njaboot gi yàlla na sëñ tubaa faj aajo yi yàlla nañ sëñ tubaa defal tawféex ak tey taysiir yàlla na leen sëñ tubaa kaweel ba ngeen kaweel fi ngeen bëgg yegg sëñ tubaa yàlla leen fa sëñ tubaa yeggale waaye yëf yi tey moom yëf yi xawoon a kii loolu moo tax baat bi ma xaw a sonn waaye lépp tawféex la lépp tawféex la macha allah kontaan nañ ci yéen bu baax maa leen di ñaanal di leen ziar ci barki borom Touba ñaanal seen Cheikh seen seen Sidi Mokhtar Mbacke na fi yàgg te wér di ñaanal sama sang bi suñ Muntaxa Bachir yal na ko fi suñu borom bàyyi may ko wér ak gudd fan ak kattan ak yokkal ko taalibe bu mu bëgg ci xolam yal na ko sëñ Touba defal. barke borom Touba yal na yal na ko Serigne Touba may ay fan yu gudd gudd gudd gudd ba lay buri yal na fanam gudd lool lool lool barke borom Touba ñu gën a ñu gën a jokkoo bu neexee yàlla jërë ngeen jëf. sant nañ de ak Cheikhul Khadim sant nañ bu baax a baax a baax a baax wër na borom Tuubaa am nañ mbégte lool lool lool ak Cheikhul Khadim wër na borom Tuubaa xam nga ni nekk Tuubaa direct di wax ak Cheikhul Khadim foo di nekk si àdduna bu muy Milan Rome Chine foo man di ne mën koo am en direct xam nga loolu loolu saa lu taw feexe la barke Cheikhul Khadim waaw taw feexe sëriñ bi la bu baax a baax a baax moom daal yéen moom wax dëgg yàlla lu leen ñaanal doyut parce que Cheikhul Khadim ñu ngi leen di ñaanal daal sëriñ bi nga xam ni moom ngeen di liggéeyal waaw moom yàlla leen teg loxo rek waaw bàcc Cheikhul Khadim moom moom yàlla leen teg loxo a baax a baax moom daal jàpp leen ne moom ñi bëgg a doon yi te nekk si diaspora bi wax dëgg yàlla ñi ngi am mbégte lool bàcc Cheikhul Khadim am nañ mbégte lool lool lool bàcc Borom Tuubaa waaw Bichri TV waaw yàlla na ko sëriñ bi yëkkati ca kaw a kaw a kaw waaw ba ñëpp ba ñëpp ba ñëpp ba ñëpp teg ko bët barki Cheikh yi ñu ngi leen koy ñaanal bu baax a baax baax di si am mbégte lool lool barki borom Tuubaa cërë ngeen jëfati cërë ngeen jëf cërë ngeen jëf waaw am nañ mbégte de am nañ mbégte lool barki Cheikh Xaadim jërë ngeen jëf waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah murid yi ñu ngi siyaar bu baax a baax a baax a baax di feeñal suñ mbégte lool barki Cheikhul Khadim si Bichri di santaat Cheikhul Khadim a baax a si may gëm ñu may ñu xam ko barke borom Tuuba waaw ñun moom ay murid rek lañ bëgg a doon di ko saakoo doon ñu ngi tuddoon Cheikh Diop nag dëkk Touba waaye yàlla dafa def ni ñu ngi si côté Milan fa la ñuy nekk fan yi waaw wax dëgg yàlla Côte d'Ivoire nag lañ caaroon waaye bi ñu waajal suñu bisu xaside bi Côte d'Ivoire bu 2016 bi ndeysaan si la yàlla def ma xam Bichri TV man waaw bu ma gisee seen pub bi tamit ndeysaan ñu ne kat bisu xaside bi ndeysaan dinañ ko def direct wër na Cheikhul Khadim bisu bisu xaside bu Côte d'Ivoire bi direct laa ko seetaan suba ba ngoon mu nekk douze heures de temps xaw ma barke Cheikhul Khadim ñu am mbégte lool di ko bëggee lool barke borom Touba mu ñuy dundalaat màggal gi nii nag fi ñu nekk fi ñu nekk nii ñu ngi en direct di seetaan cérémonie officielle bi xam nga loolu tawfeexi sëriñ bi lu bu baax a baax moom daal mi ngi jàppale murid yi nekk si fu ñu mën di nekk si àdduna bi ndeysaan ñuy dund sëriñ bi baax a baax a baax wax dëgg yàlla amuñu fayam waaw ñun nag ay taaliba yu xeebu lañ waaw bëgg rek bëgg doon rek taaliba Cheikhul Khadim waaw di ñaan nag liñ liggéey si màggal gi yëpp. waaw yàlla ñu ko borom màggal gi nangul barki Cheikhul Khadim te jàppale leen yéen itam bu baax a baax a baax fépp fu bëgg egg daal maa ngi ñaan si doole Cheikhul Khadim yal na ngeen am lu kaw seen njort barke borom Tuubaa waaw moom daal bokk na si média yi nga xam ne moom moo ñuy waaw moo ñuy sori moom wax dëgg yàlla barke Cheikhul Khadim Cheikhul Khadim rek lañ koy seereel cërë ngeen jëf cërë ngeen jëf cërë ngeen jëf sant nañ bu baax a baax a baax barke borom Tuubaa